vous pour le président ngay ñëw di ko maltraiter di ko di ko toroxal ci biir réew mi li toroxal la donc toog ay policier ay gendarme ma ñëw xam nga ñi ñëw naa dañ dafay inventaire ci li ngeen xamul voilà ak ñu fi nekk di liggéey donc loolu il faut que les gens les sénégalais se réveillent que et ñu comprennent que ne lii am entre Macky Sall et Bougane Gueye amul benn lien d'affinité politique yoo xam ne da liggéey et ci jaaxal sax pourquoi ñu cibler des médias kese voilà donc mais mooy tey mooy tey mooy tey kii wax na ko sama suñ coordinatrice wax na ko sànq. Mhm. mooy tey jii bugaan mun xamoon au au bu muy commencé mouvement bi. 2018 ba léegi ak bu ma mhm. ak bu tey allure bu mu am Bougane allure bu mu am tey il faut qu'on se dise la vérité tey opposant bu plus radical kan la tey ñu waxante dëgg rek quoi. mais donc xam neen tamit politique bi. Hmm. gis nañ pour opposant bu gis bu taxaw rek il faut ñu coller la benn motif damm say faar donc loolu moo fi nekk. Hmm. loolu moo fi nekk moo tax tey lii nag il faut mu demee nii mais damay lance damay wax Bougane Gueye en direct ne lii bu mu ko bu loo na xam ne lii ci politique la bokk. Hmm. donc na xam ne lii da koy gën a may doole ñun militant bu gëm sa bopp dañuy gën a suudewu gën boole boolewu liggéey suñu ambition du dara lu dul Bougane Gueye génn ñu suñu jafe-jafe yu xam ne mm. sénégalais moom dun tey moom lañ koy yaakaar bu ma toogee ak moom loolu laa ko wax Bougane vous êtes l' de la jeunesse mm-hmm. Mm-hmm. si la jeunesse donc moom instant moom lañ yaakaar te bu ko dara euh, dara génnee ci logique bu mu nekk mm-hmm. nii tey ñun en tout cas on confiance en lui te ci jàpp ba ilaa yu merci beaucoup di remercier coordinatrice ñëw ci turu GSB force 2024 yëpp dama ñëw ci seen tur waaw macha allah lii lañ indi woon comme contribution. ci suñu président. ñun ñoo ngi ak tout cœur ci ginnaawam. lii dañ ko def pour yàqal ko mais daf ko gën a defaral. ñoo ngi ci ginnaaw Bougane jusqu'à la mort. ñoo leen di gërëm bu baax. vraiment di leen sant di leen sant am na ñenn ñoo xam ne ne euh, ñu ngi euh, waaj a ñëw donc euh, su au niveau de la régie mën nañu def transition le temps que ñi nga xam ne ñoo war a yéeg ci plateau bi yegg si. merci mm. beaucoup vraiment pour votre présence merci merci. C'est bon ok on y donc euh, am nañu ci plateau bi ay gan yu dikk léegi nii euh, madame euh, tur bi laa xamul Fama Ndiaye voilà Fama donc ci femme bi la ñuy njëkk a commencé parce que defe naa ne jigéen <laughs> moom la ñuy gën a tertu ci mbooloo donc ñu ngi lay euh, dalal bu baax a baax euh, Cheikh Seck moo nekk euh, un peu droite et puis Moustapha Gueye nekk à gauche donc Cheikh Seck yaa njëkk toog ci yow laay tàmbalee donc da ngeen ñoo ñëw pour solidarité wala peut-être aussi pour am li da ngeen am lu leen naqadi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk naataango yi ma fi fekk. di la nuyu di la taxawu bu baax di la ziar. Mhm. di nuyu sama soppe bopp xam ni ñoo bokk liggéey bi. Euh, c'est pour juste pour waxtaan ak nit ñi askan wi ndax te itam Bougane jeune la. Mhm. ni ñun yor teraanga bu toll nii amul fu mu ko def fu dul fii. li ci raw ba dàqati ci mooy ay doomi sénégalais ciy liggéey. Mhm. jàpp ci seen bopp di ci taxawu seen i njaboot. kon donc bu déggee dañ koy tëj rafet na ak jaadu na ñu ñoo wax ci wax ju rafet ndax Sénégal ñoo ko bokk. Hmm. te itam nee na gaal la gaal gi naka lay demee faaw ñu joow ko hmm. buñ ko joowul du dem te lii ma gis nii ci kanam day doy waar ñu nekk ay jeune ma nekk animateur nekk ci télé doon liggéey ci télé 2STV maa ngi bëgg ñooñu ñëpp tamit buggaan tamit nekk suñu naataango moom itam muy ku baax ma xamee ko lu baax musuma ko gis waaye li muy def dafa rafet fii ci réew mi Macky Sall mooy suñu président de la république hmm. moom tamit doole ji mu yor kenn attanu ko lu mu bëgg day am yàlla daf lay jox ñaari doole ci nguur bi nga mën mooy del def taxawut askan wi di defanteeg ñoom lu baax beneen bi mooy mën nga ne leen duma ba mën leen a rey ndax ñaari kàttan yooyu ngay am waaye bi ci gën mooy nga taxawu leen yàlla ca lay kontaane ca lay ca la lay yokkale waaye di noot askan baaxul parce que nit ñi dañu sonn même bu dul buggaan sax les gens sont très fatigués mm. barke Alaaji Malick du ay caaxaan mm-hmm. nit ñi am na ñoo xam ne ñu dund loo xam ni musiba la kon donc lii bu amee te télé télé boo xam ne day fay génne loo xam ne lu nit ñi du gis télé bi génne ko nit ñi xam ko te itam loolu jarul jarul ñu ciy tëj du dëgg am na loo xam nañ ko waxtaanee ndax waxtaan mooy jëmale réew kanam dara fajul mer mer dara faju ko xët-xët baaxul bu nu waxtaanee mën nañu jubboo ka ci anam bu rafet pacifiquement moo gën ñuy rayante ndax la fois passée président Sonko coowam li bi fi amee ay moor am na ca te mënoon na caa ñàkk. Mhm. ndax dan ne woon dañ koy def na naka sudul noonu population bi jóg. dem këram sànnante xeel policiers yi def na naka sudul noonu. moom sax Macky ni woon na je vous ai compris mu wax jeunesse bi ne je vous ai compris. Ah, parce que coow baaxul. loo nar a def askan wi xam ne lii du dëgg yàlla xam na dañ ciy jóg te buñ ci jógee kenn du leen mën a delloo gannaaw te lool balaa am war nañ ko mën a waxtaanee pacifiquement ndax te itam Sénégal liggéey nañ fi lu baax a mag ñi liggéey nañ fi lu baax a baax a baax lu ko yàq yombul de coow nag dana am. waaye coow balaa am mën nañ ko lijjanti nanuy bàyyi li ñuy def ci waxtaan lépp waxtaan la ak dal waxtaan bu amul musiba day am maa ngi ñaan sunu xalifa sëñ Bay Si Mansour mi nekk Tiwaawan man doomu Tiwaawan laa te itam bu amuñu lu dul moom ñu gëm ko lool bëgg ko lool di ko ñaan yàlla taxaw ko may ko kàttan ak gudd fan maa ngi koy ñaan ngir jëmmi rasulillah ak jëmmi maamam Seydi Aji lu rafet la xam na wax ak Macky pacifiquement ca ab déclaration bu mujj dafa nii jot na tey jii ci langue politique bi ñu ubbil bunt ndaw yi ñoom i tamit ñu ñu mën a puus xuus jàll. dëgg mag ñi yàgg nañ fi. dëgg la ubbil yoon bi ñi nga xam ne ñooy ndaw yi. parce que xam-xam lay waxe parce que mag bu yàggee du mënati dara ndaw mooy continuer réew ndaw mooy continuer réew ndax yàllaa ko def loolu ci moom ndax boo dee ndaw sa kàttan dafay dëgër di nga mën a fonctionner ci lu bari moo tax ndaw dafa war a sàmm buñ ko sàmmee moom day sàmm boppam waaye ndaw buñ ko sàmmul du sàmm boppam ndax du xam bëccëg gën kon nag dañu taxaw ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo fi des di gis yenn ñaawte fii bu fekkee nii lay continuer kon du baax nañu soppi suñu xol soppi suñuy doxalin ndax la yàlla digle woon ba léegi mi ngi fi buñ ci nekkee mu jëm kanam la amoon bu njëkk amatul la amoon bu njëkk fekkee daa démb ak tey mhm. la amoon bu njëkk avant dévaluation bi fi la ma fekk la bu njëkk ak tey bokkul mhm. lu bon rek am lu bon rek am nan koo wax réew moo xam ne caaxaan caaxaan caaxaan caaxaan caaxaan baaxul te jamono ji ñu nekk dafa am ñu nekk suñuy biir la Serigne Cheikh doon wax teggal gu wéer pengal la dafa am ñu ñu rax ñoo xam ne duñu ay nit ñu mën a tooñ ba léegi ñu ngi ci biir kër yi ci mbedd mi lan nekkoon nag waaye ñu ngi ci biir kër yi bu yeboo ñu def très attention kuy xëcc coow boo ko gisee ne ko kaay bàyyil mu sedd yàlla xam na loolu barke alxuraanu karim. yàlla xam na ne loolu la ñu aadawoo Sénégal. Ah. no waxtaan. waaw mag ñi daan jóg ba ci koñ yi. maire yi dañ daan dëkkandoo dëkkandoo yi maire yi ñoo daan génn di lijjanti ba mu ni kocc te kenn du yëg coow du am waaye léegi dafa am ñu ñu rax loo ñu ñu rax nag ñoo ñuy poussé ci yenn yi faaw ñu delloo suñu xel nag tey bañ di xëcc coow loo xam ni boo ko xëccee mu jur la musiba bu ne dañuy tëj télé Bougane bi nan waxante dëgg Bougane am na ñu ko bëgg ay jeunes yaa ngi ko bëgg jeunes yi duñ taxaw fii di sànni xeer policiers yi ñëw tiirante ay di am mar day taali fu muy mujj après fan lay mujj mhm. léegi ci daar daar bi nañ koy lijjanti waxtaane ko ñu ngi ñaan kilifa diine yëpp kilifa murid bi sëñ Mountakha moom itam ci mbaax lañ koo xam ne ak réegu rafet bi daanaka ñoom ñaar sañoo bokk ab sëriñ wallaay azim sëñ taxa na rafet rek. ñoo ko bokk na rafet yàlla lu rafet la bëgg. te ñuy waxante dëgg te bañ a naxante Macky mi yor réew mi bu mu déglu benn wax bu na def li ko soob muy lu baax looloo koy jëmale kanam bu mu déglu billaay bu mu déglu. Mhm. am na ñoo xam ni lan lay wax ak li am ci biti c'est diamétralement opposé. Mm. ñoom seen poche bopp lan fi nekkal parce que looloo yàgg ci àddina kon nag yow mi yor réew mi ñu dénk ko parce que li ma lay wax nii yàlla xam na ko 2012 Macky Sall man maa ngi doon ànd ak dammal may sa faal. mi nekkul Europe ñëwoon représenté fii Macky Sall li ma lay wax du ay caaxaan de barke El Hadj Malick maa moom toj nan Kajoor maa yoroon micro central bi booba du du Njaay Meng mii wayam bi ak Souleymane Jules moo doon way Sall ngaari président seen son boobu moom nan ma doon accompagner may wax ci Macky lu doy waar barke Cheikh Al Khalifa Macky musuma ko gis. dam damel may sa fal bu dégg li may wax dina sama waajaa ngi Cheikh Tidiane ngi daaw ñun lu xam lu ñu doon ndékki tàngal moom la ñuy añee